الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول تبارك وتعالى في محكم التنزيل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi xam ngeen ne waxtu yii nu nekk wax ji yëpp mu ngi ci sayduna muhammad ndax kéeféer gu weex ge gu ñuul gi naafiq yi ak bokkaalekat yi ñoom ñëpp danoo ànd di diaboliser l'islam lu tax ndax waxtu wi moo jot waxtu wi yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ne bu ni ci tolloo kaw suuf du mën a baax lu dul loolu ñuy wax xilaafa mu taxaw foofu la nu toll moo tax même jullit yi bi ñu deful effort sax nit ñaa ngi ñëw di indi seen bopp di dugg ci lislaam chaque jour nga gis ku tuub koo xam ne kenn waaru ko waaye yàlla moo ko indi ak mbaaxam xam ne lislaam mooy dëgg mu daal di ñëw ginnaaw ba ñu gisee lool nag def nañ moyen bu nekk pour freiner ko yëf yi di dem guddeeg bëccëg góor ak jigéen mag ak ndaw fu nekk ci àdduna bi nit ñaa ngi tuub ba ci biir réew yu ñuul ñi dañuy tuub guddeeg bëccëg wax naa leen benn ajjuma ba la passé am na benn borom xam-xam bu nag bu mag bu tudd Wahid Abdusalaam Baali moo bind téere boobu tudd Alwiqaaya benn dëkk ci Afrique la dem tubloo dëkk ba yëpp ñëpp a tub ba semaine bi bu ngeen xooloo Facebook page am moom moo ngi wax ñi bëgg a jàngale diine volontaire ku bëgg a ñëw na nga ñëw moom moo yor sa paas dinañ la fay mu ubbi ci pasam ba tey di wax ne képp ku bëgg a participer pour jàngalekat yooyu formateur islamique yooyu war a dem ci dëkk Afrique yooyu di jàngal ñooñu pour loo war a participer kenn ku nekk kon loolu day wane ne diine ji la nit ñi jublu parce que mooy dëgg amma bu dee yonent alayhi salaatu wassalaam moom ñaawal ko def lu waay mën a def pour jéem a def lu bon ci moom loolu moom say mbiri bopp kese la waaye yonent alayhi salaatu wassalaam moom daaroo doomu aadama yi ñaar fukki mbir ngi ni yi wane ne yonent bi moonu raw te dootuñu ko jot suñu àdduna bi yëpp àndoon ñëpp jinne yi sax ñëw di leen jàppale Muhammad raw na leen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yooyu bi ci njëkk mbokk yi asalaatu wasalaamu alayk ya sayidi ya rasul allah laqad xassaka allahu an jaala laka shahidan ala alambiyai sabiqin قال الله عز وجل في محكم التنزيل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقال تعالى ويوم يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء بقينا نيجنا يونت عليه الصلاة والسلام تخيوان يقول يا الله نفعل جغليكو moom yonent bi yàlla moo ko def mooy seede xeet wi ëllëg yowmal qiyaama xataa yonent yu njëkk yi moom moo leen di seede ku mu seedewul doo jàll loolu borom bi moonu ko nettali ci suratu nisa aya 41 borom bi ne ko fa kayfa ida jina min kulli ummatin bi shahid wa jina bika ala haula shahida ëllëg yowmal qiyaam bu ma woowee nit ñi ñu seede lan lañ xamoon ci xeet yu njëkk ya ñu taxaw wax ba pare yow Muhammad laay indi nga confirmé soo ko dëggalee mu jàll boo ko dëggalul ñëpp redoubler dem safara sallallahu alayhi wa sallam wa qala taala wa yawma nab tubas fi kulli ummatin shahid alayhim min anfusihim وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يلا من ëllëg يوم القيامه xeet bu nekk dama ciy tànn kuy témoin ndax yonent yi jottali woon nañ bu nit ñi bëggee weddi yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam lay woo sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne ko maa la wàcceel téere bi mu nekk luy leeral lépp ci kaw suuf yàlla moo wàcce téere bi pour mu leeral ko yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ñaareel bi mbokk yi laqad xassaka allahu an jaalaka alshahid ala ummatika wa shahidu alayha wa kazalika jaalnakum ummatan wasata litakunu shuhda ala annas wa yakunu rasulu alaykum shahida ñun ñi suñu bopp yowmal qiyaam pour ñu dugg ajana yonte yàlla muhammad moo ñuy seede ñun bu ñu seedee yeneen xeet yi ba pare ndax yonent yi jottali woon nañ ba pare ñun ñii suñu bopp yonent bi moo ñuy seede ñun ñun tamit ne jottali na wala jottaliwul mbokk yi qaala taala huwa sammakum almuslimuna min qabl wa fi hada liyakunu rasulu shahidan alaykum wa takunu suhada ala annas ñun ñooy seede yeneen xeet yi waaye ñun ñii kan moo ñuy seede Muhammad lan la ñuy seede ndax dëgg-dëgg lim fu indi woon nekk nañ ci wala dañ koo sori woon suñu seedee yeneen xeet yi yonent bi seedenu ñi nekkoon ci li yonent bi di dugg aljanna ñeneen yàlla yóbbu leen safara mbokk yi ñetteel laqad xassaka allahu duna gayrika bilshafaa سواء قبل البدء الحساب أو بعده فقد قلت يا رسول الله أعطيت خمسا لم يؤت أحدا من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مصيرة السهر وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا فأينما الرجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأهللت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأوتيت الشفاعة وكان النبي يبعث في قو إلى قومه خاصة وب- و- وبعثت إلى الناس عامة متفق عليه yonent bi nee na juróom yi rek doy na ngeen xam ne man duma moroomu gaa yi raw naa leen bu yàgg ñu ne yonent yooyu lan la mu ne xeet wu ma attaqué maa ngi ñëw balaa may ñëw weeru yàlla da ngay tiit balaa may yegsi moo tax yonent bi ak gaa yi mu àndaloon kenn mun leen dab yonent bi su mu soon wax benn xeet dëkku yéeféer maa ngi ñëw su leen ko waxee weeru yàlla dañuy tiit saa yu ñu xëyee dañuy tiit balaa yonent yàlla muhammad yegsi weer la wax ku mu attaqué weer da ngay tiit balaa muy ñëw loolu yàlla moo ko defal ñu ne ko ñaareel mu ne suuf sépp yàlla defal na ma ko muy sijaada ku bëgg a julli fu la julli fekk mun ngaa faxas suuf si daal di julli set na wecc jarul ngay uti loolal loolu man dong maa ko am ci yonent yi keneen amu ko woon ñu ne ko ak lan mu ne suñ demoon xeex xeex yi yéeféer yi ak jullit yi daje jullit yi dóor yéeféer yi yéeféer yi daw bàyyi seen bagage yi yonent bi nee na bagage yooyu jël ko lekk dagan na man dong la ko yàlla may amul keneen loolu mooy almaghanim bal sax aaya la ci quraanul karim moom dong la ko yàlla daganal amul beneen yonent bu ko yàlla daganaloon ñu ne ko ak lan mu ne yawmal qiyaam maay rammu kenn du rammu balaa man lu dul ma rammu ba pare ma doog a nag su ma desalee ma doog a wax ñeneen ñi ñëw leen ngeen seet ñi des ngeen génne leen ñu ne ko ak lan mu ne yonent yépp yàlla ci ay ruq la leen doon yónni demal ci ay nit Moussa ila qawmihi Ibrahima ila qawmihi Nuux ila qawmihi ñu ne ko man nag mu ne wa maa arsalnaaka illa kaafatan linnaas sallallahu alayhi wa sallam kon du moroom gaa yi mbokk yi ñeenteel laqad xassaka allahu ya rasulallah ya saydi duna gayrik bi annaka imaam al anbiya wa xatibuhum faqad qulta ya rasulallah أنا أول الناس حرجا إذا بعثوا ana khatibuhum ida wafadu wa ana mubashiruhum ida ayasu liwa'u alhamdi bi yadi yawma izin liwa'u alhamdi bi yadi wa ana akramu waladu adam ala rabbi wala fakhr rawahu tirmisi yonent yàlla muhammad nee na bokk na ci li ma yàlla jagleel ba tey jagleelu ko kenn mu ne yowmal qiyaam bu yonent yi ne tëll taxaw mu ne maay nekk seen kanam yonent yëpp nag amul ko mbàyyi mu ne suñuy jox kàddu man maay wax wa ana xatibuhum maay def discours bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa ana awalu nnaasi xurujan ida buisu bu yàlla walee suuf si ak asamaan si lépp yàpp la yàlla mokkal ko aaya boobu yàlla naan isa dukkatil ardu dakkan dakka ba yëpp mokk ba dara taxawatul lépp a tëdd amatul kuy dox wala kuy dukkat yàlla toog ba mu neex ko mu dekkil jibril mu ne ko demal nga dekkil seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jibril day wàcc xool suuf si du xam fan la bàmmeelu yonent bi nekk ndax lépp a nuróo lépp a mokk lépp teere bu amul dara la day delluwaat yàllaa ko gën a xam waaye day delluwaat su ñëwee lu muy wax yow sama boroom xaw ma sang bi fan lañ ko suul mu ne ko dellul suy wàcc day fekk ñaari projecteur yu néon lamp yu weex tàll mu ngi tuul ba mu ngi tiim bàmmeel bi leer nañ mu ñëw fëgg diggante ñaari lamp yi fëgg Muhammad ne ko kokkan la mu ne ko man la Jibril mu ne ko jógal nga wuy sa borom yonent bi ne tël sikkim bi taq suuf Jibril di ko faxas mu ne maay njëkk a dekki yowmal xiyaam balaa yàlla dekkil kenn wa ana la wax awalu naasi xuruj mu ne maay njëkk a génn isa buisu bis bu ñuy dekkil jaam ñi mu ne wa ana xatibuhum bu ñëpp dekkee maay wax mu ne bu ñëpp taxawee maay jiitu ci kanam wa ana mubassiruhum isa ay asu suñu taxawee ba sonn ba ñëpp découragé découragé ñëpp yaakaar ne safara lañ jëm mu ne man maa leen di bégal naan leen xaar leen ma ñëw rek ma lijjanti mbir mi ñëpp dugg ajana kon kii buñ toogee ba tey di ko xas ak di dessiner ak di ñaawal xanaa bëgg alak suñu bopp la waaye kii raw nanu bu yàgg sallallahu alayhi wa sallam mu ne du ñu yem ci loolu waaye liwaa'ul hamdi yawma izin bi yadi mu ne drapeau bi loolu ñu naan liwaa'ul hamd mu ne man maa koy yera keroog wa ana akramu waladu aadama mu ne maa gën a tedd ci li aadama jur bi yàlla defaree aadama wàcce ko ci kaw suuf muy am ay doom ba fii nu toog ba dina bi jeex ku fi juddu sayduna muhammad moo la gën sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne loolu nag man dama ko wax rek waaye tiitaru wu ma de fa qultu ya rasulallah ida kaana yawma alqiyam kuntu moom mooy laaj mooy wax de mu ne man yonent ëllëg su yowmal qiyaam ñëwee kuntu imaamu nabiyin yonent yi maay nekk seen imaam wa xatibuhum maa leen yor seen discours wa saahibu shafaatuhum ñoom yonent yi sax maa leen di ramm sallallahu alayhi wa sallam juróomeel bokk na ci yàlla li mu defal yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laqad xassaka allah ya habibi duna gayrik bi annaka al awwal man tanshaqu anhu al ard wa annaka awwalu man yub'as qultu ya rasul allah ana sayyidu waladu adam yawm alqiyama wa awwalu man yanshaqu anhu alqabr wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffi' rawahu muslim yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na bokk na ci li ma yàlla defal moom yonent dafa toog ci biir néegam biir néegam ak jàkka ji dafa jege woon mu dégg sahaaba yi di wax yonent yi kan moo fi gën kii ne ah Adama la yàlla njëkk a bind Adama fi gën keneen ki ne déet ah Ibrahima di xaritu yàlla xanaa da ngaa fàtte keneen ki ne déedéet xanaa yow gisoo seyxul mursalina Nuux keneen ki ne déet xanaa yéen da ngeen a fàtte Moussa yàlla nee na wa kallama allahu Moussa taklim Moussa yàlla wax naa moom keneen ki ne yéen da ngeen a rek Isa amul amul baay noonu la ko yàlla sànnee ci Mariam mu ñëw mooy ruuxullah yonent yàlla Muhammad génn. gaa yi di ko xool mu ne dafa mel ne am na lu ma dégg ngeen di wax ñu ne waaw waaw mu ne lu ngeen di wax ñu ne yonent yi ku ci gën mu ne teg mu ne ah lenn da laa xam man mii man yonent ana sayyidu waladu aadama maay sangu doomu aadama yi yowmal qiyaama awwalu man yanshaqu anhu l ard maay ki suuf di njëkk a ubbeeku ma génn man yonent maay njëkk a dekk yowma alqiyaama wa awalu saafiin maay njëkk a ramm yowma alqiyaama balaa kenn ramm mu ne man maay ñëw fëgg buntu aljanna gardien bi ne ko kan la ma ne ko Muhammad mu ne ma caabi jaa ngi nii dañ maa waxoon balaa may ubbil kenn ma ubbil la mu ne xanaa xamu leen keroog bi yàlla di dekkil jaam ñi mu ne man bi ma dekkee ba bare fekk naa Moussa taxaw ah ñu ne ko Moussa nag mu ne xaw ma kañ la dekki de waaye moom fekk naa ko foofu mu taxaw kon yonent yàlla Muhammad a ngoog sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne lii lépp nag maa koy wax waaye wala faxr wa ma min nabi yawma idin aadama wa ma siwaahu illa taxta liwaa'i wa ana awalu man tanshaqu anhu l ard rawahu ahmad yonent bi leen xaw ma lu xew de waaye ëllëg yowm al qiyam mboolem yonent yëpp sama suufu drapeau la ñuy nekk ñoom ñëpp sama drapeau moo leen di tiim mu ne maay kii njëkk a dekki ëllëg yowm al qiyam maay kii njëkk a génn ci kaw suuf juróom benneel mbokk yi ci yàlla li mu jagleel yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam laqad xassaka allah duna gayraka ya rasul allah bi an jaalaka sayida alawalin walaxirin yowma alqiyama faqad qulta ya rasul allah ana sayidu waladu adam ana yowma alqiyam rawahu muslim wa qulta ya rasul allah wa qulta ya rasul allah ana sayidu nnas yowma alqiyam wala faxr rawahu hakim yonte yàlla muhammad nee na li aadama jur ñu njëkk ñaar ñu mujj bi mu ne maa ci gën mu ne tama la ñu koy xam rek yowmal qiyaam jot mu ne ñëpp sonn ñu dem gauche dem droite wari aadama mi juróon jaam ñu ne ko kaay mu ne munuma dara daal di gàntal mu ne ñu dem ca Nuux mu ne munuma ci dara ñu dem ci Ibrahim mu ne munuma ci dara ñu dem ci Muusa dem ci Isa ñoom ñëpp dañuy gàntal ndax kenn ku nekk am nga looy lay yi ñu ñëw ci moom mu ne xaar leen ma ñëw may leen ma mu ñëw mu ne mu ñëw keppaaru arsh mu sujjoot yàlla ne ko muhammad mu ne ko labayka ya rab mu ne ko irfa raasaka yëkkatil sa bopp bi wasal tuuta wasfa tushaffa siggil sa bopp waxal li nga bëgg ñu déglu la su fekkee da ngaa bëgg a ramm ñu jox la nga daal di ramm wasfa tushaffa mu ne yàlla sama xeet laa bëgg nañ dugg aljanna xoolal waxul na ana fatima de sama doom waxul ana ali waxul ana Xuseyn waxul ana Xasan lan la wax yaa rabbi ummati yàlla sama xeet nan ñëw dugg aljanna sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñaareel ayyuhal ahbab mu ne laqad xassaka allah duna gayrik bi anna annaas bima fihim al anbiya taxta liwaik faqad qulta ya nabiy allah ya rasul allah wa ma min nabiyin yawma idin adama wa ma faman siwahu إلا تحت لوائي رواه أحمد وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ولواء الحمد بيدي ولا فخر وآدم فما دونه تحت لوائي ولا فخر حديث بابو أحمد صلى الله عليه وسلم الترمذي batay ci li yàlla jagleel yonent moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit ñëpp waxuma aadama waaye nit ñëpp annaas ñoom ñëpp mu ne même yonent yi buñ ci bokkee mu ne ñoom ñëpp yowmal qiyaam sama keppaaru drapeau la ñuy nekk amul kenn ci ñoom mu ne kenn ci ñoom du wax ku dul man maa lay wax jox ndigal ginnaaw ba ma waxee ak sama borom ba pare juróom-ñetteel mu ne laqad xassaka allah duna gayrik bi anna saahibu liwa bi annaka saahibu liwa faqad qulta ya rasul allah bi yadi liwaau lhamdu wala faxr mu ne ëllëg loolu mu leen di wax na ngeen ñaan bu ngeen déggee ñu nodd ba pare ngeen ne allahumma rabba hadihi dawati tamma wa salati alqaima ati muhammadan alwasilata walfadila wa basu maqaman mahmudan allazi wa'adta mu ne barab boobu ngeen may ñaanal mu ne man dong maa ko am yowmal qiyam moo tax ma wax leen ñaan leen ko képp ku ñaan bu ma ci jotee ëllëg man maa lay rammu yowmal qiyamati sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bokk na ci yàlla dafal yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam muy taraanga boo xam ne yàlla moo ko jox muy kawsar ëllëg yàlla subhaanahu wa taala jox na yonent bi dex goo xam ne dafa weex ba moo gën a weex soow neex ba moo gën a saf suukar topp yi ci nekk moo ëpp biddeewi asamaan lu yéeme mooy am na ci ñoo xam ne ci dex googu tudd kawsara ali mooy taxaw di leen tànk nit ñi ran ali di leen jox ñuy naan am na ñoo xam ne omar moo leen di jox ñuy naan am na ñoo xam ne ousmaan am na ñoo xam ne aboubacar am na ñoo xam ne muhammad ci boppam moo leen di tànk ñuy naan ñoo leen jox ñuy naan waaye am na fa ñoo xam ne dañoo jékki-jékki rek gis kopp yi branché wu seen gémmiñ ñuy naan ñu ne yàlla ñii nag mu ne wa saqaahum rabbuhum saraban tahura ñii man yàlla maa leen di jox ñuy naan dex googu kan moo ko moom mooy saydina muhammad inna aataynaaka alkawsar fa salli li rabbika wanhar inna shaani'aka huwa al abtar aqulu ma tasma'un wa astaghfiru allaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله لقد خصك الله دون غيرك بأنك أول من يجتاز بأمته الصراط قبل كل الخلق فقد قلت يا رسول الله ويضرب الصراط بين ظهر جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجزي yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ko yàlla defal nee na ëllëg yowmal qiyaam bu ñu lalee pont bi ci kaw siraat nit ñi war a jéggi dugg aljanna ku daanu dem jahannam ndax siraat mu ngi ci kaw safara borom bi subhaanahu wa taala wax nañu ko mu ne wa in minkum illa waariduha amul kenn ci yéen lu dul su duggul ci biir safara si dina ko jàkkaarloo ak yi bëtam amul kenn ci yéen ku mën dara rek génneel sa bopp ci damir bi wa in minkum amul kenn ci yéen illa waariduha lu dul dana ko traversé yeneen bi nee na bu ñu lalee pont bi ci kaw jahannam mu ne ana wa ummati awalu man yi sama man ak sama xeet ñun ñooy njëkk a traversé maa jiitu sama xeet topp sama ginnaaw sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñu teg pont bi ci kaw jahannam moom yeneen bi mu ne fa akunu ana wa ummati awalu man yi ñun ñooy njëkk a traversé bokk na ci ko yàlla defal fukkeel bi mbokk jullit yi لقد قصك الله دون غيرك بأنك أول من يقرأ باب الجنة فقد قلت يا نبي الله ويا رسول الله أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرأ باب الجنة رواه مسلم ينتي على محمد عليه الصلاة والسلام نينا خوما لالا دني ألق من ماي كي نجك فق بنت الجنة من ينتي ما وخني من ما مجي ووتي واي ما أبو مولو yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam li mu am ci nit xool leen bi ko yàlla yónneeg léegi ñaata musulman moo am ci kaw suuf ñaata te mu ne maa mujjee ñëw waaye mbooloo mi maa ci ëppale mu ne yowmal qiyaam da nga gis yonent boo xam ne benn nit la am benn benn bu ne tëll kenn moo ko topp mu ne di nga gis yonent boo xam ne moom kenn topp ko amul kenn kenn kenn di nga gis yonent boo xam ne juróom waaye mu ne man bu ma génnee kenn dootul gis asamaan seeg suuf si léppay ñuul ndax man la ñuy topp sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi mu ne man maay ñëkk a ñëw fëgg buntu aljanna kon mbir yaa ngoog yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam kenn mun koo yàq digganteem ak nit ñi mu ngi mel ne yoobaak guy gi yoo bi dafa ñëw daal di tag ci garabu guy gi naaw ba tag yendu fa ba ngoon ba timis di waaj a jot mu war a dugg ci kër yi màtti nit ñi mu ne guy gi téyal say reen préparel jàppandul ci suuf si maa ngi waaj a naaw balaa ngay daan guy gi ne ko ba nga fii tag yëguma ko mu ne ko fi laa yendu mu ne ko yëguma ko est-ce que guy yow mun na daaneel guy loolu mooy diggante muhammad ak noon yi dañuy wax ba sonn yuriduna li yutfiu nur allahi bi afahim yàlla mu ne wa yaba allah illa an tatimu nuruhu walaw karihal kafirun walaw karihal mushrikun yonte yàlla muhammad a ngoog sallallahu alayhi wa sallam fukkeel ak benn laqad xassaka allahu duna gayrik bi annaka awalu man yadxulu aljanna fa qulta ya habibi ya rasul allah aati baaba aljanna yowma alqiyama fa astaftihu fa yaqulu alxaazinu man ant fa aqulu muhammad fa yaqulu bika umirtu an la aftaha li ahadin qablaka rawahu muslim mbokk julit yi doy na rek yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na ëllëg bu nit ñi dekkee ba ñëpp sonn ba ñëpp jaaxle ku nekk xamoo foo jëm mu ne man maay waaxu ñëw ba ci buntu aljanna daal di fëgg ridwaan mooy gardien bi mu ne ko kan la mu ne ko muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne bika umirtu yow lañ ma waxoon lañ ma santoon laa aftaha li ahadin qablak du ma ubbil kenn ku la jiitu kon kay loolu doy na musidɓe fulɓe caggal julde nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam e yettude joom men anden e oɗo nelaɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam gonga ko allah nelimo allah nelimo waɗanimo gueɗe ɗe ganduɗa waɗanani ɗum hay goto e nder annabaɓe ɓe allah waɗimo kanko ɓuuri annabaɓe on jangi qur'an allah wi tilka rusul faddalna baduhum ala bad annabaɓe ɓe fof alqur'an haali inde maɓɓe won hen ɓe allah haalni nelaɗo won hen ɓe allah haalnanimo minhum man qasasna ileyk wa minhum man lam naqsus aleyk wonɓe kalanmami wonɓe mi kalnanima ɓe o haalnima ɓe alqur'an ko nogase joyyi e nder nogase joyyi ɗi allah yaltini hen joyo ɓen woni ulul asmi min arrusul e nder joyoɓe allah yaltinamo hen kanko goto mouhammad sallllahu alayhi wa sallam kanko woni almami imamul moursalin kanko woni almami nelaɓe foof kamɓe foof sa ƴeewi limore maɓe koɓe 124 mille kono kamɓe foof janggo yowma alqiyama nelaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ardotoɓe ndewa caggal makko kanko jogoto drapeau o winde hen liwaul hamd kanko arata ha damal aljanna o honga damal ngal denowo damal aljanna wiyete ko ridwan o wiya ko moni o o wiya mouhammad o wiya ko an yamin mi hade mi udditande hay goto yomi udditane est ce que so udditama kanko o natat ala o wiyat hoto leñolam woni oto leñolam woni oto leñolam woni o namdaki fatima o namdaki ali o namdaki husayn o namdaki hasan holmo namdi o wi ko ummati leñolam en enen ko holngon leñol jeeɗen leñol mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ganden nelaɗo ko allah waɗanim ko ala annabi mo waɗani janngo yawma alqiyamati ina jogii nokku e nder e aljanna wiyete ko maqaman mahmud nokku jettaɗo o wi nduwana ɗe kam mi heɓa on nokku somi heɓi on nokku kala gooto e moon janngo yawma alqiyama komin tefantamo o naata aljanna allahuma ihfir lana qabla almaut warhamna inda almaut ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله